asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nga xamante ne ni yéen a safoo seen site d' information Pikine Info la voix de la banlieue ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement di leen dalal ci seen rubrique people ba tax na tey nag ñu ngi seet si ki nga xamante ne nii mooy Keba Seck du duñ def lu di rek bàyyi Keba Seck mu daal di nuyoo Keba Seck ñu ngi lay nuyu. Euh, Mamy Diatta maa ngi lay fay euh, di nuyu ñëpp ñu seetaan euh, Pikine Info la voix de la

léegi nag euh, kañ nga décider exactement dal di def carrière solo dal di jóge ci Salam diaro def sa carrière solo. bima xam nga bo xasse ba dugg ci musique rek déjà décidé nga donc euh, exactement aussi pour euh, parce que maa ngi démarré je pense ak Salam ci bi muy nek Sahel donc ñu fa jógee maa ak Salam bu yag yag wax dëgg yàlla euh, mu gën ma puus moom mu gën ma encouragé donc euh, daal di may def woykat gannaaw bi ma bokkee fi ma bokk donc c'est grâce à lui bi ma nekkee woykat après salaam euh, ma xaw a rejoindre tuuti coon ci ànd ak ñu ànd ak Ousmane bi bi mu beree Ousmane donc ci la ma boole ak Ousmane man nekkaat ak Ousmane ay ati ati at ba sama tur jot comme ni ko di waxe mu daal di may ber ma dem nek comme leader comme dañ ma dañ jité sama manam ma wara jité jot ma dem jité ji ak sama groupe sek ala kep sa Band créé par Balago. Euh, seetlu nañ euh, jamono yu ñu weesu génne won nga fi single bu ñuy wax kuy reer reer bi. non reeraguma ko ba single bi passé euh, gis nañ single bi def na buzz nga jox ñu benn buum boo xamante ne ni ba tey xale yi dañ koy fecc ginnaaw boobu gisatuñu beneen single. clip boobu rek lañ gis ba xam sa source d'inspiration dafa jeex wala nu mu fa demee noonu parce que sénégalais yi doyale guñu de. ku commencé gul doom nooy jeexale yow koy neema rek gisaatu guñu beneen single ou gisaatu guñu leen loo génne bientôt mi ngi ñëw.

d'accord euh, kon bu ñu la déggee bu baax yaa ngi ñëw daal. ah damaa bëgg ñëwaat incha allah. Ah. kon baax na te kii ba seetlu nañ ñi comme yenn artistes yi nu ñu koy defee à chaque fois dañuy gis euh, chaque semaine rek benn artiste génn ci média yi ak yooyu mais yow dañoo seetlu ñu danga nga réservé wu. Euh, wàllum média bi duñu la ci gis lu bëri ay interview duñ la ci gis lu bëri lu waral loolu. ah man de gisaguma la. parce que rarement ngay guen té euh, so xolé ci yenn artiste à chaque fois dañuy guen da fay interview wala lolu mais yow buñ xolé ba xol da nga melni ni ku réservé wu. non du question sax réservé wu c'est juste que né euh, bu jot def émission joté je le fais bu dem télé joté dina ko def comme ci radio yi suma dem dina dem mais duma dem ni rek pour bëgg wax ci rajo yi ba pour bëgg feeñ télé ba comme seen site bi euh, surtout Ibro la xaw Ibro Ibro Ibro xam nga sama njëriñ bi leen jëm donc euh, seen seen Pikine info bi donc euh, donc comme man maa ngi ci maa ngi ci biir parce que ci banlieue bi la bokk comme ñëpp donc Pikine info daf may concerné les concerné aussi bépp artiste mais surtout nag képp ku nekk ci banlieue bi xam nga il faut que ñu gën ci bàyyi xel et puis di ko suivre mais.

boo dégloo Mapenda Seck mel na ni déglu nga Thione Seck boo dégloo Thione Seck déglu nga Wally sekk est-ce que loolu tey jii nii du doon benn euh, impact boo xamante ne ci yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a fël parce que bu ngeen bëggee fël. yan xanaa. ah yan ñu ndaw ñi. man ko la. <laughs> a fël. Ah. Euh, allah as single bu mu génn yàlla man na ma.

lan moo tax du ngeen def duo entre yéen parce que gisoon nañu Thione Seck ak ak Assane Ndiaye jotoon nañ ko fi def mais lu waral yéen Seck Seck yi du ngeen def eh, duo entre yéen. jaata jaata yi. def na duo ak Assane Ndiaye normal boobu temps euh, asan jai mi ngi ak ma Mapenda am na duo ak Thione ay duo c'est normal. mais jamono yii nii nii nii gis nga bis bu dee jotee moo xam toute la famille moo xam wala kii ak kii wala kii ak kii on va le faire waaw ah. ah, mais xel da koy daj mais da ngay nekk ci lii kee nekk ci lii ki nekk ci lële dee jotagul mais bu dee jotee pourquoi pas loolu c'est deux fois rien man su ma su ma tey su ma leen waxoon ma déglu si yow rek woo kenn ku ma neex ma woo. ko doon woo ñaar ba ñett. dañ koy def. loolu rek la loolu rek la bu mu def problème. loolu kese la ba xam amul dara lu la lu làqu ci suuf. coono coono nii di def euh, album presque euh, ba ci man mii ci laa bokk man wax dëgg yàlla man mii maa demagul wóor na ñëpp pour ñu bokk ci album bi. d'accord. Hmm? waa baax na bu ñëwee ci Thione Seck moomu sax seetlu nañ ni temps yi waa ba tey deret gi la seetlu nañ ni temps yi euh, mi ngi def buzz euh, ci net bi ci problème am ak kii di Youssou Ndour am nañ problème ah, ah waaw ay rumeur la nag ba tey wóoruma ay rumeur yu may dégg ah. ñu ngi koy wax ci net bi rumeur yi bëri na ba tax sax bu Youssou Ndour génnee benn single fii ñu ne con lay gaarwaale bu con wéyee fii ñu ne moom ba ci Wally Seck sax commencé nañ ko dégg moom ak euh, Youssou nduur problème boobu yow lan nga ci xalaat. non xam nga yow mën na bëgg am lu ma leer parce que man gisuma problème Sénégal nag moo mel noonu man su ma amoon lu ma génn léegi am nu ma waxee ñu ne diw laay waxal teguñu ko fenn.

temps yëpp ñu ngi dégg ay ay rumeur nit ñi di wax di wax léegi nag mais dama bëgg nga leeralal ma mais leeralal ma du ñàkk ne xam nga si dara. lay leeralal tu bien dit ay rumeur yëguma problème Thione Seck ak Youssou Ndour. mën ngaa wax ne yëgoo problème bi tons. non boo bëggee dégg-dégg jarut neex nan ma tons ndax njëkke woon tons yëguma problème bu am foofu. way en général su génnee rek nit. nit ñi dafa ñeme yàlla rek mën a diw lay waxal fan la ko teg way boo génnee way booy euh, ku ne mën na ci gis sa bopp dafay concerner tout le monde surtout way boo xam ne euh, dafa am ay paroles yoo xam ne dafay concerner booy xool tout le monde léegi bu concerner tout le monde ñu ne diw diw lay waxal mais pour lan pour lan. mën nga ko gisee daal. waaw man bi may par exemple kuy reer bi man sama bopp la ko njëkkee parce que ma euh tago séminaire dem mbaraandi ji je l'ai fait <laughs> tàggoo naa ci côté leneen luma neex fekk ne c'est pas vrai Wa. Mm. Ah. jox ci sa jabar rek boobu moom mënu ko ne may dem bërëb sangam nga tag ko fenen mm. pourtant ñëpp ci seen

si di ngeen topp rek ku ne bind loo neex waa média yi. mais tubaab bi dafa ne y' a jamais de fumer sans feu de. y' jamais de fumer sans feu nga bañ a fumer. yaa wuy ma boo fumer boo. <laughs> mami jàdd rek la waaye yëguma ne y' a problème entre parce que ku su nekk yaa ngi sa coin jàpp sa njàmbur di def li ngay def quoi. kon baax na léegi yow lan mooy sa. sa relation ak kii di Youssou Ndour ndax seetlu nañ ni même booy génn gis nañ la ci émission yeewu leen ci euh, euh, Futur Média daanaka dañ la ciy gis lu bari léegi yow bëgg nañ xam lan mooy sa relation yow ak Youssou Ndour. booy xool Youssou Ndour euh, amuñu relation booy xool waaw xam nga tax parce que man mosuma toog ak Youssou Ndour yeneen ñi dañuy daje rek flash mën na ma gis. mën naa mën na bañ a gis man dinaa ko gis parce que daa xam ne kii Youssou Ndour parce que Youssou Ndour il n'est pas <laughs> n'importe qui xam nga donc tey it nag wax dëgg yàlla exemple la ko xam nga donc modèle la monument la comme nu ko ñëpp nekkee mais amaguma benn relation ak Youssou Ndour très sincèrement même su fekkee ne maa ngi maa ngi nekk maa ngi dem Futurs Médias di Youssou Ndour moom la defal émission. monde l'avait fait. Telem la. Waouh, mais Telem là mais aussi nous t'aimons là aussi parce que du monde, donc moi je plateau wala du donc, la invité télé sénégalais la ci da ci am lu ci comme borom ah, <laughs> tonton Keba bokk. album bi kañ la. moo jaaxal ñëpp. Ah. moo jaaxal ñëpp mais euh, da nga a joxe date di faussé ndax yàlla rek moo mën moo dul faussé bientôt. bientôt daal fa nga koy. doom doomu dugal. da nga ñoo wax rek. mënuma dugal ah, su ma. la waxee ci Pikine info gii ñëpp di ko suivre ñu ne maa waxoon nangam nangam boobu yàlla bañ. waaw ah, doo ñu mosal as tuuti rek yaa ngi ci. non waaw ci kàddu suñu borom am nga bientôt dama am na loo xam ne euh, macha allah wax dëgg yàlla man ma dégg nga ma maa yàqamtiwul mais am na ci loo xam ne Thione Seck pare na ko ci démb bi daaw. bien avant deux ans après la kuy reer reer bi ñëw te bokkul sax ci studio yi ma ko defee donc Thione def na li mu waroon def man maa yàq man maa pareegul. man pareegu ma ak yow de. ah kon pareegul. ndax damaa bëgg. nga wax ma kañ ngay dem grand théâtre nag. nga daal fee def dóor ok ok waaw bah, loolu tamit bon ok loolu tamit bon c'est très logique mon na fa dem depuis mais je me suis dit que ne bëgg ma dem grand théâtre juste parce que dama génn woon single bien vrai que yàlla def na ci teg na ci loxoom macha allah wax dëgg yàlla mën naa fa dem nag wax dëgg yàlla ndax bi single bi génnee yàlla teg na ci loxoom maa mënoon a dem grand théâtre ba mu neex mais je me suis dit que ne naa bàyyi ba album pare. au moins dem grand théâtre door jot ci man waaw. mais di nga dem. ci kàttanu suñu borom boo xam ne grand théâtre waaye maamu théâtre sax bëgg naa fa dem. xanaa mooy Bercy. Bercy rek néew fi. Ah. Mhm. waaye fu mu toll nii mooy def bës de. kooka xanaa Bercy. Bercy du Sénégal de. waaye xanaa nag boo nee maamu grand théâtre nga xalaat Bercy. maamu grand théâtre euh, maamu Bercy sax mun naa am ji.

ki ma xam ku ma xamul ki ma gis ak ki ki ma mës gis ki nga xam ne bëgg na maa gis yéen ñëpp ma leen di ziar leen wax jërë ngeen jëf danañ bàyyi xel Pikine Info la voix de la banlieue ñu ñëpp ay banlieusards lañ na neex loolu waaye. waaw mbokk internet yi yaakaar naa ne li ma leen indiloon tey neex na leen Keba ak lañ dalaloon dégg ngeen li mu wax nag nee na album bi mi ngi ñëw te ne da dem maamu Grand Théâtre di leen jox rendez-vous nag ci seen beneen numéro people